bu loolu wéyee mais il faut voir les racines du mal mm -hmm. les racines du mal mm -hmm. c'est le chômage endémique des jeunes xam nga soxna Maria deux cent mille jeunes deux cent mille jeunes ñooy ñëw dans le marché de l'emploi at mu nekk chaque année mm -hmm. deux cent mille jeunes mhm. même bu président Macky Sall promettroon un million de jeunes un million d'emplois par an mooy dina résorber juste les deux cent mille or ñëpp gis nañ ni tey depuis de avec le plan le PSE le mm-hmm. plan Sénégal émergent mm-hmm. bi nga xam ne dafa extraverti trop vraiment euh, li muy favoriser entreprise France euh, mm, étrangères yi dafa ëpp trop par rapport à l'économie locale loolu dafay poser un problème donc d'accès à l'emploi pour les gens te gis nañ suñu structure de l'emploi au Sénégal est-ce xam nga que 97 pour cent des emplois au Sénégal c'est des emplois de l'informel gis nga tey boo demee ci statistiques yi nga xam ni c'est les statistiques du gouvernement il y a plus de 70 pour cent des emplois des entreprises ci sont créées par les yoo xam duñ def un an mmh. ça signifie quoi mm-hmm. mais ça signifie que l'emploi des jeunes aujourd'hui est un véritable problème qui interpelle tous les candidats à la prochaine élection présidentielle mm-hmm. ñun moo tax ñu focus ñun fépp Tawfekh dañoo focus sunu programme bi ñuy proposer Sénégalais sur la création d'emplois mais d'emplois décents pour les jeunes emploi décent président Macky Sall euh, dama ci mm. dama ci insister parce que président Macky Sall bi mu promettre un million d' emplois pour mhm. les jeunes pour son deuxième mandat mhm. sur le premier mandat c'est sept cent mille emplois qu'il avait promis mhm. sept mille emplois yi nga xam président Macky Sall daf ko promettre woon biñ xayma réellement c'est deux cent soixante et un mille emplois qui ont été créés effectivement tey bi mu yëkkatee programme xëyu ndaw yi lu ñu gis mooy des emplois vraiment non décents Mhm. pour l'essentiel dama ci jël rek benn exemple j'ai beaucoup de respect pour ñi nga xam ne ñi ngi agence nationale de la grande muraille verte parce que man je suis un forestier de métier mhm. je suis ingénieur agroéconomiste de métier kon ma xam bu baax a baax jeunes yi nga xam ne dañ fi utiliser pour ñu nekk ci pépinière pour ñu nekk ci reboisement bi mhm. xam nga lu lu leen di fay quatre-vingt mille quatre-vingt-dix mille au maximum xam nga ñi nekk ci UCG lu ñu leen di fay. cinquante mille soixante mille. te dañ leen di sous-traité. te kenn amu ci contrat bu mu signé bañ tàmbalee ba léegi. bi ñu waaj a dem tabaski lañ amoon trois à quatre mois arriérés de salaire quatre-vingts mille yooyu daw nañ ci quatre mois kenn mënu leen a fay mooy jeunes yi dañ amuñu emploi dañ faa jàpp ndéggugum loolu pour man loolu du emploi. loo jàppandi gum la. Hmm. pour que nga mën a wuti liggéey. te booy xool jë boobu jeunes yi ci nekk ñii làq nañ seen master. Hmm. ñii yàq nañ seen seen baccalauréat. Hmm. ñii dem nañ université ba affaire bi dëgër ñu ñëw soo kër même ña amoon jakarta bàyyi ko dem ci emploi yooyu dañ dañoo bàyyi emploi delluwaat ci seen jakarta. ok parce que la ñu am ci jakarta bu ñëw ko am ci ci seen emploi yooyu. c'est dire que. donc du ay emploi décent